nga xam ne si amoon mun na waxaa mun a dilee muy jàng mu xasida gi nan nga yëg yëgee nan nga yëgee bés bi ak ban gis-gis nga sa jàmm rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel di ñaan Sëriñ Muntaxa Mbàkke yàgg yàgg ci ginnaawam yàgg koo liggéeyal jotaay bi ak njàngum xasida bi ak teewaay bi fii ci ginnaaw sëriñ bi dundal weeru koor yi dafa sedd guy suñu xol euh, naam yàgg na noo teew koor waaye mbirum sëriñ Tuubaa moom day yokk rek loolu la sëñ Muntaxa xam ba yokkee ko ci melokaan yi nga xam ne addina bépp tey ñu ngi seetaan Tuuba li ñuy koore mi ngi dundale weer ni ko Cheikhul Xadim waxee woon rek bi xiraat taahaat weer bi kenn du ko dundal ci lenn lu dul jëfe ndigali sunu borom daw ay tëram noonu nag ci lañu ñëwee di teewaaye saa bu ñu nekkee Tuuba teew ci barab bi ànd ak yéen dundal weer wi ni ñu ko daa defee ba tax na incha allahu ne lañ ci royee fee xam ne fa ñu nekk muy jéemul su waxtu wi jotee ñu ànd ak mbokki taalib yi dem ca jumaa ja jàng yi dundal weer wi ni ñu koy royee rek ci Tuuba kon daal ngi sant di ñaanal ñëpp di ñaanal waa daara ji sama borom yàlla yokk leen jàmm yokk leen xéewal ndax seen jëf ji tey àddina bépp a ngi ciy daara ji yàgg na noo liggéeyal Serigne Touba te jamono Cheikh Abdoul Ahad ba tey jii ci sëñ Mountakha waaye yeesal bi ko yeesal waxtu wu loolu jëf Serigne Touba rek la jumla ma jërëjëf asalaamaaleykum jotaay bi nga xam ne yaa ngi koy teewee jotaay si Mouhamadou Mountakha saa su ne waxtu wu ne ci xasida yi noo ko gisee ak noo ko yëgee. xanaa gën a rek di gën a waxtu wu ne mu mel ne sëñ bi moom wax dëgg yàlla ñaan suñu borom mu yàgg fi lool lool lool ba nekk kéemaan rek moom la def ndax waxtu wu ne muy yeesal pas-pas yi di yeesal yéene yi ak yitte moom moom si lool la loolu lañ ciy gis ba mu ko taxawalee ba léegi waxtu wu ne muy gën a uh, rafet di gën a yaatu di gën a uh, wane uh, taalibe maanaam nun nun suñu xel daa fees ba daan lu ñuy mën a wax maanaam daanaka mu ne su ko yiw te di ñaanal daara ji sa borom taw féexe leen guddal fan yi téebéeral cër yi te i xéewal yi ndax lépp lu ci sëñ bëgg bëgg mi ngi koy amee ni mu ko bëggee te te te te xawaay bee tax kon ñoo ngi ci ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax waaye di bég nañ lool ci taxawaay bi bég nañ ci bu baax a baax a baax ñaan suñu borom boole xéwal yi rek la ñuy def de xam naa ñaan rek la ñuy def daaye ma am ñu ci bëgg a yéenee wax mu euh, gémmi gi mënu koo génne asalaamaaleykum wa rahmatulah bisimilah barke sëñ Touba kon sëñ Elimane Sarr ñu ngi lay ziare ngay jëwriñ ci liggéey bi saa su ne at mu ne nga ñëw di fekk si liggéey bi nga xam ne moom si amoon moom dafa digle ah am ci liggéey bi ak yéegi boo ci am. waaw ah, ah, ñoo ngi sant sëñ Touba bu baax nag di leen nuyu di leen siyaar di nuyu képp koo xam ne mi ngi eh, déglu di seetaan Ramadan ah, yëg-yëg bi ñu ci am nag mooy sëñ Mountakha Mbacké dafa def. lu rëy loo xamante ne bii defal na ko kullu murit waaye defal na ko kullu muslim képp koo xam ne yaa ngi ci alamu islam rek sëriñ euh, Mountakha ameen nga ko njukkal ndax benn béréb boo daje benn saa di jàng alxuraan di yëkkati xasidaay Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne day defar àdduna defar àllaaxira di ko tagg di ko màggal fa ko doon defee woote naag tey fii ñu koy màggalee ci dëkkab sëñ Tuubaa bi ci béréb bii nga xam ne mooy eh, nem ko waxee rek wajxalhu yaa rabbi ahabba maskani fii addinaa laka wala maahisani ñu koy dundal fii kon sëñ Muntaxa ah kenn ku ne war na koo ñaanal war na koo sargal war na koo ndokkeel te it bisam fii nga xam ne mooy Ramadan ñu koy dundal fii ci bisub ci ci ci dëkkub sëñ Tuubaa bii ah ba ko sëñ bi sanc day woote naag tey bam koy dundali ca ca tukki ba woote nag tey kon bu mbooloo mu toll nii dajee fii sëñ bi santaane ñu koy dundal nga xam ne béréb biñ ñu koy dundal wax na ne masrabu shaafi la minal man baax yi masrabu saafi minal man baax shaafi nga xam ne teewaay gi rek day faj ay aajo diglu xasida yi képp toog ci béréb rek day saafara lépp kon nag ñoo ngi sant sëñ Tuubaa ci teewe guñ ko mën a teewe ci kanam sëñ Mountakha waaye ci kanam murit yi waaye itam xasida yu neex yi nga xam ne dundal giñ koy dundal ak taxaw gi lépp sëñ su Diop la ko sëñ mun Mountakha teg ci loxom ak waa Hizbut Tarqiyyah ñu ànd koog mbokk jullit yëpp di ko dundal lool daal weer wu màgg la woo xam ne daal na ko sëñ bi waxaan rek ne weer wi bu ñëwee dañ koy dundal ci jaamu yàlla dañ koy dundal ci jàngu alxuraan dañ koy dundal ci tudd yàlla ak xeetu jaamu yàlla yëpp ak infaq fi sabilillah kon sant nañ bu baax daal ci teew guñ fi teewaat ren nañ ko euh, nañ ko teew woon daaw ànd kook yéen di ko dundal di ko màggal rek di naan suñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi loolu ti wér ak mboolem jullit ak jullit yëpp suñ borom yokk seen i tawféex yokk seen i xiiwal saxal na ci li suñ borom digle ci weer wi sëñ Tuubaa santaane ko ci ñu mën koo taxawee man koo jëfe te mu nongal nu ko si barkeb sëñ Tuubaa États-Unis xam naa ne comme ni ñu ko dundee fii rek noonu la ñu foofa ñoom it. waaw moom itam daanaka boo xoolee dañuy xam ne adduna bi léegi dafa xëttaloo dafa gindaloo ñu lenn lu ñuy def foofa lu ñu dëppalewut ak Touba ak waa Touba du am du weeru koor buñ koy séentu du wari du gàmm du màggal du leen lu mën a doon daal xam nañ ne fii ak États-Unis ñeenti waxtu lañ rawantee kon ñoo def dara lu juyoog waa Touba rawatina nag sunu sangamu tëdd bii di Seex Muntaxa nga xam ne moom lépp daa janoog moom te dañ ko war di ko njukkal di ko sant ndax bi ay xat-xat amee ci àdduna bi jumaam ji ak dëkkam bi képp la jàkk yi tëju kon nag kooku fu nekk moom lañuy ñuy déglu moom la ñuy roy te xam ne nam noon lam noonu wal tasbitan fihi jamaatun tuqim asalawaatil xam si daabal yaa noonu daal ni ñuy dunde fii daal noonu lañ koy dundlee foofa ndigal it noonu lañ koy dégloo waxtu wu jot duñ ci bàyyi dara loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu juyoo waa nag sëñ Touba sëñ Mountakha kon ñu ngi ñaan mu yàgg fi te wér yéen seen liggéey rafet na yal na ko yàlla barkeel yéen a ngi jàngal àdduna sëpp islam ak diine ak yoonu murid yal na ngeen fi yàgg te wér jërëjëf barke Borom Touba la ilaha asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu mbokki taalibi yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa bitim réew ñi nga xam ne ñëpp ñooy topp suñu programme fii ci kër sañ Touba gii féete ci soowu jumaa ji tey di ñaareelu fan ci weeru Ramadan mu dëppook le 13 mars 2024 programme bi duñ leen ko waxati mooy njàng mi nga xam ni diggante tàkkusaan diirub waxtu danañ ko def ci moom Cheikh mun Mountakha te mu njàng moo xam ni moom moo ko digle te kuréel Hizbut Tarqiyyah di ko ay ay loo tey nag euh, li waral ñu dalal kenn ci ñoom muy sëñ du mbay mooy ñoom seen kuréel di kuréelu Nour Daarayni bu Daara Touba bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñoom ñoo ay njàng mi ci njiital sëñ naa Diagne balaa yàgg ak euh, sëñ Modou Mbaye dana leen dikkal ci programme bi waaye ngeen xam tamit ne euh, ñi ngeen dégg ñuy jàng ci biti mooy kuréelu Muqaddamatul Xidma wax nañ leen démb ne kuréel yëpp seen tur dafa soppiku léegi dañ koo dëppaleeg tur yi nga xam ne moo dëppoo euh, bindum Serigne Touba ak xasida yi nga xam ne tur yi mu leen jox ba tax na dootoo déggati kuréel 1 kuréel 2 kuréel 3 waaye mooy tur yu jekk tur yu murite yi nga xam ne Serigne bi tànnal na ko boppam ci lañ leen jëmee démb dégg ngeen almashrabu saafi tey di ngeen dégg muqaddamatul xidma di ngeen dégg nuur daari ni yooyu yëpp turu kuréel yi nga xam ne ñoo ay ay njàng mi du ñu def lu dul jox sëñ Modou mbay mu jot leen programme bi nga xam ne tey diggante xasida yi ak daaci yi nga xam ne tey moom la ñu war a jàng ci salle bi ci kanam Cheikh Mamadou Mountakha sëñ Modou Mbaye bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Masso ñu ngi leen ziar bu baax di nuyu baax ci weer bu tedd bi nga xam ne nekk na ci muy weeru Ramadan ñu ciy ndokkeel bu baax sëñ Mountakha mi nga xam ne saa su ne mi ñu ngi koy ànd ak moom muy liggéey sëñ Tuubaa bu mag. Euh, kon tey kuréel bi nga xam ne mooy jàngal sëñ bi fii ci saal bi muy kuréel Noor Daara ni kuréel Noor Daara ni bu ñu ko déggee mooy kuréel 1 bu Touba léegi kenn dootul waxati kuréel 1 bu Touba waaye léegi kuréel Noor Daara ni fu ñu ko déggatee rek xam na ne mooy kuréel bi nga xam ne moom lañ daan wax kuréel 1 Touba kon tey li nga xam ne moo doon programme bi nga xam ne moom lañ fas yéene jàng fii ci saal bi ci kanamu sëñ bi kon muy daaju sëñ euh, Lam Diop du Moussa Moustapha daaju sëñ Mbaye Diop ak xasida yi nga xam sëñ bi da koo tënk ci chahru Ramadan euh, moom tamit dañ koy jàng ci saal bi ak xasida Minanul Baax Xadim daaju sëñ tafsir ak maxawta la nga xam ni daaju sëñ Abdou Khadir Seye kon mooy daaj yi nga xam ne moom lañ fas yéene jàng fii ci kanamu sëñ bi incha allahu rabbi waaw na sëñ Modou def naa lu ma la tey mën naa la bàyyi nga dellu ci kuréel yi ndax léegi njàng mi tàmbali gis ngeen oto yi dugg si moo lay wan ni sëriñ bi soreetul euh, léegi mu yegg si ci biir salle bi te bu yeggsee rek njàng mi day daal di tàmbali donc en ce deuxième jour du mois béni de Ramadan nous sommes aujourd'hui au niveau de la salle euh, qui accueille ces prestations sur les écrits de cette euh, psalmodie des de Cheikhul Khadim, des écrits de Cheikhul euh, en présence du Khalif général des Mourides, Cheikh Mohamed Muntaka Mbake. C'est un programme maintenant que vous connaissez. Il commence à 17h30 à peu près et euh, dure une heure d'horloge. Et ce les courels, les groupes de chanteurs des Isbutarkhé qui vont se relayer et à qui mieux mieux de cette dextérité dont ils ont toujours fait montre pour déclamer les écrits de Cheikh C'est un programme, on ne peut plus alléchant qu'on vous propose encore aujourd'hui. Et j'avais dit également qu'il y a un plus cette année-ci, puisque la dénomination des groupes de chanteurs des Kourels a changé, puisque on est à accueillir ces noms glorieux, ces noms euh, resplendissants que le chef a choisi pour ses écrits. Et on en a choisi pour chacun des Kourels. Figurez-vous, on parlait de Kourel un Kourel 2, groupe 1, groupe 2, groupe 3, mais on parle de kuréel jaalibatul maraqib on parle également de Moukhaddamatoul Khidma on parle de Nourou Darayni et pour aujourd'hui le kuréel qui sera à l'honneur c'est le kuréel euh, Nourou Darayni de la Daara Hizbut Tarqiyyah Touba et dont le maître de chœur est Serigne Cheikhouna Diagne le groupe qui est en train de déclamer dehors et qui attend l'arrivée du khalife et c'est le groupe qui a été baptisé Moukhaddamatoul Khidma euh, de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba toujours sous la direction de Serigne Saliou Sall Donc c'est le programme que nous aurons à cœur de vous présenter. Et soit dit en passant, tous les supports sont au rendez-vous. Euh, c'est bien la télévision, mais c'est également les réseaux sociaux, c'est également la radio, pour dire donc que c'est un concert de transmission pour que chacun puisse vivre intensément ces moments et qui sont maintenant marqués d'une pierre indélébile dans l'agenda du mois de Ramadan et le calife, n'est-ce pas, man

بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرهوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبري الأمراض والأسلام وصليا عليه ثم سلما وآله أصحاب الكرماء

خدمة للعيون الكبار والاستقامة أبدا أن ربنا شكور من سخر للخلق بقائدا أمل ربي يا مالكي خليلي وحبيبي وقد معا عني داعي الطبيب بلأني من كل عيب ومرض وقاد للصحة في كل غرض برئت من عيوب نفسي بالتجاه إلى الذي أبابه لكل نجاه هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يليق الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني السلام عن سلام له بآله وأفضل الملا رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زدت له أفكار أمداه لنا الجهل سري وصف الخلدا قلبي صفى بكون ربي خلي هبي ولي جعل قصر الخل وجعلني على وقد عليني وفيه ما جعلني جعلني نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وحزبه وأستمر خير سرور بامتداء من بالباقي دفع حسن توجه إلي فانتفع حكم الحكيم وهو الحكم ومنه تأتي المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير أنفاني جهلا سرت به لبس علم الأهلا برأني العليم من ضلالي وصرت مبسطا بلا إخلال مع الحكيم معتلى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منزل الكتاب نزلي وإنني عن الأذى بمعصمي إذا تلوت آية نلت منام مالك المملك قد أمنا تسليم باق لا يزال أكرما على الذي لي يولي كرما أبقى سلامي الذي لي قادا بدل شيء برضا فقادا صلى عليه من هدى وصورا مد يدي لخير من قاد المنى لي بلا أزل وكل أمنا أظن في سفري وحضري بما يخالف الرضا المدري لله في الدارين بالماهية بأكبر الرضوان لا تقيدي لي قاد بالمختار ربي كلما طلبته ما رضا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا عداء ذروة أو كبدي من ظن أنه يكون أبدا يبديه بالتي كخدمتي قدا نفيت ظنه بأني القديم بما غنى عن نفسه كل قديم فله صلى عليه الله بالآل والصحب ومن والاه ضيق الذي ضيقني من العدا عليه تسليما مني لمن عداه لكل من ضيقني من قبله ولم يكن دنيا وأخرى قبله هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظمه ذات الكريم إننا معظمة يسوق لي ما أشتهي بلا انتهاء ولا أزن كمال سير انتهى ساق لي الباقي بلا انفراد فيكون لي وجه المنام تكريم من ليس له التهام ليده تبتدر اللهام بعد الوجود الكريم والكرم باق ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وحب وفيه أكرم رضيت عنه وهو عني راضي وكان لي بالأمن في أمراضي وجهل الجميل نعمة الجميل ولسوى مقاله للا أمين نفى الذي لم يرضني وسطرا سري وعيبي ومبيعات اشترى براس من بارزني براس من يبارز المنتقم البارز من إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت من إلهي صرفا في جانب التوحيد ربي الأحد مسجادا لي قل هو الله أحد له مدادي وكلامي في العدا وأبدا لست ألاقي من عدا ذل الذي يبارز الله الجليل ذل ذليل فوقه كل ذليل يا من يرى خير الإله ربا وخير أفضل الورى محبا نزع من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند الظلمات مدى كفاني الهدى وسلما مرض رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم الشجاع ونعم غازي الماهي للبحر قد وجهت عند البحر من عنده قد سر مثل البحر حبوت أفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي بسري خدمني في البر والبحر معا مدح الذي برا وبهرا جمعا وجه لي في البر والبحر منا من كونه خير الورى ما كمنا إلي في البحر وفي البحر أمال خير الورى خير فتوحات الجمال بجلني في البر والبحر خلاف من مده كبعد من سدا هديتي في البر والبحر سنا على الذي به أذى عن السنا محمد أرض وبحر لم يرى فيما مضى نظيره ولم يرى محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه في السلام نفى توجه الأذى عن قبله من يتوجه لأذائه الكريم أبوت كون الآله في أبدي وكونه لي بغيرك بديل لي كان ربي ونبي كانني بما مع عيني وسري صالني فرحني كون الإله الأحد وكون خير الخلق ليس من جهل هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمير ملتي محمد وسيلتي لخلي بالذي على حسن الخلق حسني على الذي له شكوري وهو تعالى صمدا مسكوني لله حمدي وشكري على كوني خديم من به يبدي العلا لله حمدي وشكري صمدا على الذي سعيده قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجال الأمان دون خوف باق الكفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وطهر القلب من التحميم لي يقود الله بالماحنمين ما لا يراه أحد في قلوبه يقود للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بالتسليم هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي مها توجه الأذى للماهي غنيت عن سيف وعن أرماه واجهني الشفيع بالتفسير عني خديم النور والبشير ليق من البشير بالصفاء من كدر وجاد بالشفاء أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل القديم والقديم هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه يقود للمنى بلا أداء هذه الدار وتلك الدار حسن الذي قضى لغير صرفا وكوني العبد القديم عرفا زال عباداتي وزال خدمي صفاء ذلي بغير عدمي نويت شكر الله للذي أبى لي ولي كان بأمن وربا ولي يزول توجهي للباقي ولي يقود مطلب الصفاقي الجاني الشفيع والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي الملزم خير الذكر وكان للباقي بغير مكر تسليم من لي كان بالأغراض على بشير قد مع أمراض بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات نعم خير العالمين شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد رفعت أمدادي لأفضل الورى وخاد لي مع مناي الصورى وجهني ما غاب عن أمثالي باقي كريم جل عن مثالي نفعني النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا بان لي على خير الخفا وهو سرور صرمدا لمقتفى ناجاني المختار من خير مراه وحيثما يقي أمد يميرا عليه تسليما محيط الرافع ليس يزال بكريم نافع مدى لي الباقي جزا بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت بها ونلت خير سور توجهت بها المنى بلا انتهاء وبالرضا يساق لي ما يشتهى من الاله والرسول اقبلا خير ثواب من جهاد قبلا ناجاني المنزل بالكتاب وغص ما يحمي عن العتاب إذا كتبت أو قرأت حرفا وسمنا دون مزاد الألفاظ ليركز آلات الحروف التراب ولا نوجه إلي الضراب لي المنافع بلا أكدار في دارة الأمن وتلك الدار هدى ونور ورضا وبركة فجعلني في من فقر مدركة واجهني الكريم عام أخششي بأجر ما كتبته لكسشي وجاءني بكون كل حرف كتبته لي بأجل سرتي لكل كريم جاد في السوال بموجب العلوم والأقوال لي قال يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم واجهني من جل عن مثالي بما به أبيض عن أمثالي إلي قاد أجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ما جاني الواحد عند الجاهلين بأنني صرت سرور الآمدين ناجاني الأحد عند المشركين بما غدا منه وباء المهلكين الله جل أحد الله الصمد الذي قد الله ليس بوالد ولم يولد ولم يعتد لشيء من هداه لم يلم له خطابي ويفيد من جهد لي ولم يكن له كفا أحد همي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي لسود وجهك الكريم يا كريم بما نويته أجورا لا تريم أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إليه عنت الوجوه يسكر ربه الكريم أحمده على السرور والسرور يهمته وأما سروري سرور أحمدا خير كريم سالم قد حمدا يطيح أجر من لغير ربي ما لا وغير الملتقى مربي علي عهد أن أكون شاكرا ربي على من زرزع المناكرا أزكى سلام خير رب الباقي على النبي قدوة السباقي

أما حماني عن نكاح المشركات وجه الإسلام صفاء من قدر وليس تنهو لي أسواء القدر مدى لي الباقي جزاء برضاه ولي كان الذي لي يباح نزع لي وليس مني ينزعه وإنني به همل ومفزع يقول لي ولا يقول مني إلى لمن شئت بإذن مني نفعني وبي ينفع الورى ولي قاد بالنبي صورا فزت بكون الله لي وكوني له به بجاه خير الكون أعين كل مسلم ومسلمة ولا ألاقي ضررا من ظلما نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بغرضي قلبي قد صفى وجسمي صححا ولن أزال ساقيا مصححا بي يصرخ فربي بلا مرض ولا أزل وقد كفاني العرض بين لي قدير من لا يخفى عليه شيء جادني بالأخفى وجه لي أجرا بقدره العظيم بما به عبدت من ضر عظيم أشكره شكر المحبين معاه وبالنبي لي منايا جمعا بارك لي في بسرنا وقلني بركة بقدره مجلي نويت كوني شاكرا بما أهب لأنه الخل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة وسلام من به لي قال أفضل الكلام تسليم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى الثناء أقفد هديتي إلى جماد الثانية من المحرم الحبت بغالية من المحرم الحبت بغالية من رجب إلى انتهاز الحجة له علي الصلوات الحجة نفعني النافع بالمنفوع أساتذ المقدم المرفوع أزكى سلام من هداني بالمنى على الذي كوني له ما كمنى للمصطفى وجهت أبكار السنة وبامتداره الأذى عن السنة للمصطفى وجهت أبكار الصلاة مع سلام يفاخر الملا هداني الباقي بلا ضلالة وبالنبي يقودني حلالا وجه لي باقي العزيز العزة وبي باقي اسمه الأعزة فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما جبت الكريم وأتعب للخلاف وفي منازل الهدى مع القرآن له خطابي وأمام قلبي ولست زاد ولا زاد جلبي لي جلبت ودفعت عني ما اخترتني والعكس يا سلمني ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقودني كن فيكون منك سلي بأمر قد رضيت عنك ملكتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم سخت لي النفع بغير ضر وجهت للخير بغير شر سخت لي المسونة المحررة قبلت مني درر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجبت لي بأنفع التحليم مديت قبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيته درا مثيل سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت مطلقا وغيري مبلا وجهل إطلاق مالك أليم مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك غلا وحبا أبدا لديك آويتني بالمصطفى إليك غلا وحبا أبدا لديك وللوجود رب عنه لا أمين أكرمني الكريم يوم النافع

لكل ذي قراية لي أطابا وقاتني ما لم يري أطابا وجالي ما لا يراه غيري معجزة كالخالق والتقيم إلي قاد الله في الدارين سيمني سيرني جارين نفاني النافع نفا فاقا وقد ما عن جودي نفاقا بجاه من سماته المكرم لي قال يوم المصطفى ما قال بلا أزل مرتديا فانقال لي قال ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الغرورا هدية لله والرسول هي توجهت وللكسول وجه لي سليل والنهار

بقدر عظيم ينبغي اليا وجالي ما لا يزال أبدا سرور كل مفلح مؤبدا فرح لي كريم لا أبداني في هذه الدار وتلك الدار غيب الكريم والجميل والودود رب الورى وبي يكرم وقد ما أزاحة وحمدي على النبي خير الورى خير السلام وخير تسليم يبشر الملام زال لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سر قديمه وسهل الكتاب محمد خير جميع كوني وكان لي بالله خير الكون محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كون محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كون والعلم نعم الباب

الذي سلموا مسليا مسلما على الرسول بيبي يا مرحبا ليبسون مسليا مسلما على الرسول بيبي يا مرحبا ليبسون مسليا مسلما على الرسول بيبي يا مرحبا مسليا مسلما على الرسول بيبي يا مرحبا kon li ngeen ko gis jàng bi mi ngi door a àgg euh, ci euh, tey ji ci saal bi nga xam ne kuréel bi nga xam ne ñoo ko aye woon wax nañ leen comme muy kuréel bi sëñ Cheikhouna Diagne di jiite euh, te muy kuréel goo xam jàng nañ fi njàng mu am solo subaak jàmb di ñetteelu fan ci weeru ramadan incha allah kuréel gi nga xam ne moo ay njàng mi ci biir saal bi mooy kuréel Mafaatihul Bichri bu daari Touba ñi nga xam ne ñooy gàttandu sëriñ bi war ko gunge mooy kuréel nuuru daara yi bu Hizbut Tarqiyyah bu Mbàkke Bawol ci njiital sëñ Ibrahima Sànqe kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a ay njàng suba ñuy santaat yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu fekkee ko euh, te fas ko yéen a ànd nii ba keroog weer bi di mat incha allah euh, fidèles téléspectateurs de Al Mouridiyyah et tous les autres qui nous suivaient sur les autres supports euh, la déclamation sur les équipes de Cheikh Ahmadou Bamba vient de se terminer à l'instant et vous voyez donc la salle est en train de Et demain, Inch'Allah, troisième jour du mois de Ramadan, le groupe qui sera à l'honneur, c'est le groupe Mafatul Béchou d'Andara Ajditarché de Touba. Et le groupe qui aura à cœur d'accueillir le calife, euh, ce sera le courriel Nourou Darini de la Dara Ajditarché de Mbake Baol. Donc vous voyez donc euh, les visages radieux d'avoir vécu ce moment délicieux, d'être délexté de les, écrits de Jean Mbamba euh, qui ont été déclamés

un maître très usité par le cher. On le sait, c'est une majorité écrasante d'écrits qui sont tous composés par le maître Rajas comme Matla Bouchifay, hein, comme Minal Barkadim qu'on a déclamé au jury, comme Matla Bouchifay qu'on a déclaré au jury. C'est également ces poèmes-là qu'on appelle les poèmes écrits avec la, le maître Rajas. En ce qui concerne le titre, nous l'avons vu, c'est un poème composé au nom de ceux qui étaient dévoués aux actions dirigé vers Allah le Très-Haut. Et c'est pourquoi c'est un poème qui est un long défilé, n'est-ce pas, d'être glorieux, nous allons le voir, et au nom de qui on sollicite les bienfaits d'Allah. Le premier vers, Alhamdulillah wa sallallahu abada, louange à Dieu et qu'il bénisse à demeure, celui qui, par considération de qui la droiture nous a été dévoilée. C'est un premier vers. C'est vrai que C'est un poème qui est destiné au Tawassul à solliciter les bienfaits d'Allah, mais on sait que le cheikh est toujours dans la posture de quelqu'un qui rend grâce. Nombreux de son poème, donc, nombreux sont ses poèmes qui commencent par Alhamdulillah, comme Jazbul Qulub, Alhamdulillah Aqil Mubin, ou bien comme, euh, comme euh, Matlabul Fawzaini, Alhamdulillah wa Abada, euh, comme euh, Mafawzaini, Alhamdulillah al-Karim Minan. ou bien comme le poème si Alhamdulillah wa sallallahu abada. Donc c'est un poème où le cher, dès le départ, est marqué par cette, euh, ce besoin de rendre grâce à Allah le très Et, et c'est un poème de sollicitation, certes, mais la posture constante, c'est une posture de quelqu'un qui rend grâce à Dieu. Le vers 2, le Sayyidina Muhammadin wal Ali wa sahbihi zawin nawalil wali. Euh, il s'agit de notre maître Muhammad ainsi que de sa famille et ses, compagnons qui ont la faveur de Dieu. Et on le voit, c'est un respect strict d'une hiérarchie. Il commence par Allah le très qui est le Créateur, et vient ensuite son représentant attitré, le prophète Mohammed, et salé sur lui. Viennent ensuite sa famille, ses compagnons. Et c'est la trajectoire que le poème va suivre. Il évoquera le prophète en premier, il évoquera sa famille, il évoquera ses compagnons, et parlant du prophète, il y aura également par ricochet tous ses collègues, tous ses autres prophètes qui viennent après lui. C'est un long tawassul, c'est une longue sollicitation des bienfaits d'Allah par la bénédiction de ceux-là qui ont été agréés par Allah le Très-Haut. Et c'est un sujet qui est une controverse parce que certains pensent que quand on demande, on demande directement à Allah, mais le traitement fait par le chef montre que il y a des êtres agréés, il y a des lieux agréés, il y a des moments des mois agréés, qui sortent du lot, il n'y a pas ce nivellement unilatéral. Tout ne pèse pas du même poids. Il y en a qui sont agréés et sollicités à la par le truchement de ces aides est bénéfique et est un raccourci probant pour le musulman. Et il ajoute donc, donc voilà le plan que nous allons suivre. Au vers 3, il dit « Je m'exprime, sollicitant auprès d'Allah et par les noms de ceux qui détiennent la primauté. Il ajoute, Fakultu ya Karibu ya Mujibu, Salli Allah bihi tujibu. Je déclare, ô toi le proche, ô toi qui exauce, accorde ta bénédiction à celui par la grâce de qui tu satisfais les requêtes. Vers 7 et vers 8 marque une fracture parce que quand il dit Haza, ou bien quand il dit Fakultu, comme si ce n'était pas lui qui parlait, on sait bien que Mais quand il dit faqultu, ou bien quand il dit haza, ou bien quand il dit zal yaumi, ce jour, c'est pour montrer qu'il y a une transition et il va aborder une thématique qui le tient à cœur. Cette thématique qui le tient à cœur, mais c'est ce Tawasulu qui va démarrer et qui sera, n'est-ce pas, un, une longue pérégrination qui sera un défilé incessant d'êtres glorieux qu'il va convoquer et solliciter le bienfait d'Allah par leur intermédiaire. C'est une donc précision temporelle quand il dit ce jour et quand il dit Fakultu, et il singularise et c'est pour montrer sur le plan de la rhétorique une rupture et qu'il va aborder un point qui le tient à cœur. Et il ajoute encore Waqbal bihi nazmi haza karim wa bihi yunaji ma yurub. Et pour marquer une nouvelle orientation du poème, ô toi le noble généreux, accepte par, la, par lui mon poème que voici et accorde la requête de celui qui fait une sollicitation par le biais de cet écrit. Et c'est un avant-goût du bénéfice charismatique qui est rattaché à ce poème. Parce que s'il dit que euh, c'est un, un moyen d'acquérir une sollicitation, tout ce qu'on sollicite auprès d'Allah, c'est dire donc que c'est un poème qui a une valeur charismatique incommensurable. Et on voit que donc les cinq premiers vers étaient une sorte de préambule, un après, avant d'aborder le vif du sujet, qui sera une longue traversée, qui sera un mémorial, qui sera un défilé d'êtres glorieux qu'il va convoquer. La source des bienfaits, par le truchement de ces êtres-là, est bénéfique pour le musulman, et c'est ce à quoi le chef invite les et les autres. pour commencer, il a le respect strict, n'est-ce pas, d'une hiérarchie qui s'est déclarée dès le début, puisqu'il parle d'Allah, Ensuite, il parle du prophète. Il va parler des autres prophètes parce que le prophète Mohammed est celui qui est au-dessus du lot. Mais il y a une hiérarchie puisque dans le lot des prophètes, il y en a cinq qui sont les Ulul Azm, les apôtres Dieu de Constance. Si c'était un podium, il serait sur la plus haute marche du podium. Et il les cite dans l'ordre d'arrivée, dans l'ordre de succession. Le premier, les derniers venus, le premier venu jusqu'au dernier venu. il commence par rabbi bi noohin wa ibrahima lexfir zunobi wax fi min rajima okim bi muy saab bi jaay isa waaqiyani dunya wa ukhra busa donc il parle du prophète euh, Noé ensuite le prophète Abraham ensuite le prophète Moussa et enfin le prophète Insa pour terminer par celui qui détient le bâton de maréchal c'est le prophète Mohammed paix salut sur lui donc quand on sollicite Allah on le fait par respect par la hiérarchie par respect à la hiérarchie que lui-même a posée. C'est pourquoi il les prend par ordre d'arrivée et comme le Coran l'avait dit, c'est ainsi que le Coran les présente. Ça veut dire qu'on doit les présenter dans leur ordre d'arrivée. Ce n'est pas tout, il continue évoquant donc Noé, Abraham, Moussa, Insa, ensuite le prophète Mohamed. Et, à après cela, bien sûr, viennent les compagnons orthodoxes. parce que après que la prophétie a été close, il y aura des continuateurs et le cheikh ne peut manquer de les convoquer. Lui, dans, qui disait dans Muqaddimat, Ô toi le serviteur, n'oublie pas les compagnons, qui les oublie, son panégyrique devient erroné. Et c'est un travers, euh, c'est un, une méprise qui ne peut pas lui arriver. C'est pourquoi juste après les prophètes, il en a cité cinq, ce sont les plus représentatifs, mais on sait qu'ils sont 313 parmi les envoyés, ils sont 124 000 prophètes, mais triés sur le volet, ils sont cinq les plus puissants qu'on appelle Ulul Azm, les apôtres de Constance. Quand on les cite, tous les autres prophètes sont dans le lot. Il vient ensuite aux compagnons, ceux-là qui ont été les dignes continuateurs, Abou Bakr dans l'ordre d'arrivée, ensuite Omar, ensuite Ousmane, ensuite Alioune. Donc, respect strict, n'est-ce pas, d'une qui, est, euh, qui date de la nuit des temps et que le cheikh sacrifie à ce respect-là parce que simplement c'est ainsi que les choses marchent. Ceux qui sont devant viennent devant, ceux qui suivent doivent suivre. Voilà donc pour ce premier aspect sur euh, Tohfatou, nous avons convoqué ce Tawassul sur les prophètes, ce Tawassul sur le prophète Mohammed, ce Tawassul sur les compagnons, viendront ensuite les autres et tous les autres. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois, demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.